Principi la 3 prossimi mbokk yeeg xarit yi asalaamaaleykum yéen suñu mbokk internet bi nga xamante ne nii yéen ñu safoo saa su nekk di ñu seetaan en direct sur la télé Pikine TV ñoo ngi leen di nuyu fépp fu waay mën a nekk moo xam ngay doomu Sénégal fépp fu waay mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew mi euh, télé Pikine TV mu ngi leen nuyu bu baax a baax a baax waaye di ñaanal yàlla ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy suñu kilifa diine yi ak kilifa aaday waaye di jiital si ñaan gi ki nga xamante ne moom moo di sëñ Mountakha Bachir mu yàgg fi lool te ànd ak wér naka noonu ñu di ko ñaanal ñu di ko ñaanal mbooleem kuy xalifa diine si réew mi rek ñu am gudd fan ak wér gi yaram yalla yagal sen taxaway ba ci kanam kanam loolu lañuy sakku ci ñoom te diko sakku ci mbolam julit ñu defal leen ñaan ndax sen yag fi moy suñu ndirign mbokk yi tay ñu ngi fi ci Pikine tali bu euh belgeli mamba la jagne ku ko wax xam belgeli bi xam ko ci walu éleveur waye ku wax belgeli bi xam kuy mamba la jagne bi nga xam bu baax lan lay def ci wàllu jur lan lay lan lay liggéey ci wàllu éleveur loolu moo waral mbokk yi tey Pikine TV def déplacement ñëw ba fi seet si ko fas ne waxtaan ak moom ci wàllu élevage waaye fas yéene am ak moom waxtaan bu yaatoo yaatu ndax dañoo dëgmal ab foire foire bi nag lépp loo xamante ne nii luy xeetu mala rek di ngeen ko fa gis bu soobee yàlla loolu dina bokk ci li ñuy waxtaanee waaye mbokk yi balaa dara rek euh, ñu bàyyi ki nga xamante ne nii moom mooy suñu nijaay Mame Balla Diagne mu nuyoo ak suñu mbokk internet yi ñu doog dugg ci waxtaan bi asalaamaaleykum waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah Seydina naa maa ngi leen ziar bu baax di ziar sama doomu ndey ay Aydara muy sunu sang ndax ay Aydara moom képp ku ko sant sant rek Sénégal gépp bépp kër diina bu fi ne yow yaay yaay seen sang ndax ñun ñëpp suñu jubluwaay mooy sallallahu alayhi wa sallam te Aydara ci xeetu xeet boobu la bokk di ko nuyu bu baax di ko jëfal di nuyu xalifa généraux yi ci réew mi yëpp di wax euh, xalifa général bu ba

jërëjëf mbokk yi comme ni leen ko waxee woon rek waaye bu leen fàtt maa ngi feggoog sama wàllu càmmoñ suñu nijaay ñuy Aliou Dar euh, ñu xam ko bu baax ci liggéey bu am solo bi muy def rawatina ci mbooleem panel yi nga xamante ne nii ñoo nekk ci Pikine ñu bàyyi daal di koy bàyyi ak yéen mu nuyoo ak suñu mbokk internet bi. salaamaaleykum wa rahmatullah Alioune Aydara bergerie Cheikh yi moo leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu ak di leen baal àq wax dëgg yàlla di jiital ci nuyoo bi sang bi ma fekk si. muy maam Balla Diagne wax dëgg yàlla di ko gërëm di ko sant ci nangu bi mu ñu nangul di leen gërëm yéen di leen sant ibrahim ak maam Bamba di leen wax ne ñëw ngeen ci seen kër ñëw ngeen ci seen diwaan wax dëgg yàlla di jiital ci nuyoo bi nag comme ni ñu ko waxee rek xalif généraux yëpp di jël nuyoo bi teg ko ci lu Youssou Seck muy président wu Pikine TV di ko baax nekk États-Unis ba pare doon administrateur u Pikine jóg jëf nga xamante ne bokk naa fa di nuyu képp membre ku fa nekk di nuyu kullu kuy éleveur ci Sénégal et dans le monde wax dëgg yàlla di kontaan ci seet bi ngeen ñu seet si di wax ne yàlla nañ ci dugg ak bismillahi rahmaani rahim terminé ko ak alhamdulillahi rabbil alamin voilà mbokk yi comme ni leen ko waxee woon rek tey euh, suñu teewaay fii moo li ko waral mooy élevage la ñuy waxtaanee pour ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk ci réew mi ñu gën a mën a xam lan mooy wàllu élevage ndax tamit am na ñu koy dégg te xamuñu ko loolu moo waral suñu teewaay fii euh, waaye Mamballa bu ñu gisee tey sa diggante ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy xar yi li ñu njëkk a impressionné mooy affinité bi ñu am ak yow maanaam miin gi la miin loolu lan waaw xam nga d'abord euh, nit il faut muy pas am lu muy passionné ñu yàlla daf ñu naat suñu passion mu nekk xar nekk pigeon. ñaari ñaari mala yooyu moom la yàlla def ni mu nekk sama passion ma bëgg ko di ci passionné moo tax ma am affinité bi ma am ak ñoom di wax ak ñoom comme ni may waxee ak nit ñi ñu wutal leen ay tur comme nit nit ñi amee tur dama ci woo benn xarit aw ci turam ni ko diw kaay mu waaxu ba ci man ñëw taxaw ma raay ko mu delluwaat kon donc passion bi moo indi affinité boobu yëpp. bu ngeen demee ba toll est-ce que dina yomb tey xar di génn sa gétt di dem. ba nga xamante ni maanaam da koy danga koy maye wala da nga koy jaay wala da nga koy wécce loolu dina yomb. du dina yomb xamul tax euh, mbir soo ci yàggee da ngay dem ba danga koy maîtriser am ci maîtrise léegi loolu mooy waral ni tey élevage bi dafa am yoon mooy kat yi tey xar yi day am yenn xar yoo xam da nga koy dugal pour liggéey ci soo ci liggéeyee ba pare day am keneen ko ko soxla. nga seede ko kooku dem travailler moo tax génne bi du am benn problème ndax dugal bi du am problème moo tax génne bi du am benn problème voilà. tey jii bu ñu doon bu ñu doon wax maanaam fi nga fi nga jóge xëy na ba yegg si ba fii xëy na mën naa gudd mais ndax mën nga ñu see wax lu tuuti rek loo xam ne bariwul. waaw fi ma jógee ba fi ma yegg si di sant yàlla bu baax def na ay fan nag def na ay fan ndax depuis 97 ba tey jii maa ngi yar macha allah di ñaan yàlla ay at yu bari toppaat ci voilà. pour gàttal rek. mu ngi noonu Aliou Yaye Dar dégg nga ko li mu wax mu mel ni kon euh, li nga xamante ni moom mooy wàllu élevage bi njëkk mooy. faw nga am ci passion faw nga am ci gëm-gëm waaye tamit faw nga nangoo xaar. surtout da nga wax lu am solo li nga mujjee wax mooy foog nga nangoo xaar xam nga kii bu xaarul woon lii du ko ci fekk wax man at yi ma dugg ci nit fi ba wax ba doxi ma dugg. waaye li ñu ci dugal rek mooy la ko ci dugal mooy passion bi bëgg-bëgg bi ndax bu fekkee da nga nekk ci kër nga judd fekk sa yaay di yar sa frère di yar maanaam loolu mënoo cee rëcc di ci sant yàlla nag ndax yàlla suñu borom def na li ñuy yar doomu aadama yaa ngi koy jëfandikoo maanaam di ko lekk doomu aadama yi ñu ngi koy jëfandikoo ci di ko xool di kontaan bay copier ci ñun di bëgg dugg ci élevage ñi ci bëgg a dugg ak ñi ci nekk yal nañu leen yàlla tegal loxo. parce que kii damay ñaan yàlla suñu boobu mu teg ko loxo ndax bu ko tegee loxo teg na ko kullu kuy éleveur ndax bu ñu fi toogee di wax fi mu jaar ca Petit Henri. ba léegi ba mu dëkkee caaro yi nga xam ne këram foire la woon macha allah du ñu fi jóg. waaye élevage dafa nekk lu day waar foog nga am passion bëgg ko ba pare. Mhm. dog ciy duggu gis nga boo ci jiitalee xaalis bu la ci xaalis bi dugalee tembe tembe tembe di nga surux te doo am dara ndax wax dëgg yàlla xoolal 97 ba léegi nit judd na fi ba màgg fi ba am fi soxna ba am fi ay doom nit judd na fi ba ñu takk ko fi ba mu am ay doom kon du tey du démb wax dëgg yàlla ku mën a xaar loolu bu la yàlla suñu borom wuyisee ak lu mu mënta toll ci élevage wax dëgg yàlla dañ naan mérité nga ko mën nga ko am ci élevage ndax da nga ko xaar li ñuy wax rek mooy. loo xamante ne boo ko woowee mu ñëw yaa ko teewee. day toll fii woo leen ñu ñëw. bu nekkee ci suuf di yéeg ñu dégg baatam wax dëgg yàlla daal di mbee ñoom ñëpp xam ne ki nga xam ne moo ñuy tàggat. ci nan lañ ñuy tàggatee ci jox ñu lekk jox ñu naan xool ndax feebar ñu mu faj ñu waaw kooku ñëw na ñëpp jóg. donc loolu rek déjà dafay neex ci xol. Mm-hmm. bu lépp weesoo loolu dafay neex ci xol ndax nit dana mer fu ne mais bu duggee ci géttam xool élevage am toog fii mën nga fee fanaan heure bi ba bët set donc bu la yàlla suñu borom sant ja joxe ñoo xamante ne mënuñu wax mi euh, xiif naa mënuñu wax mar naa mënuñu wax feebar naa nga am passion bi dugg la ba pikiir la ba nga mën a xool femelle bële daal di koy xool daan ne bii am na lu nekk ci moom daal di koy xool te li nekk ci moom nga détecté ko mu nekk lu réel am nu yàlla suñu doon def ci sa diggante ak benn lien ak xar mi mm. loolu nag sàmmal ko sa bopp sàmm ko ndax te yàlla tax mm. loolu moom moo nekk ci élevage bi loolu daal moom moo ñu téye ci élevage dañuy nag ñoo xamante ne nii par rapport ak moom mm-hmm. boo ko xoolee biñ ci duggee yàggul trop mm-hmm. waaye li ñuy wax naan yal nañ ci yàlla tàggat ñu ciy def lu baax mm-hmm. comme moom ni mu ko mënee ak yeneen champion yi wax dëgg yàlla ndax élevage wallahi monde élevage famille la. famille la wallahi koo ci gis rek da nga koy bëgg a def ni sa bopp. foofu ñu toll nag yàlla bu ci seytaane dugg ndax yàlla amul lu bon seytaane mooy dugg jaax jaaxa sa xol. def ci ne Balla Diagne bëggu la ay Aydara bëggu la seytaane rek mën loolu. donc ñun les éleveurs bu ñu xeex ak seytaane jël li ñu moom bokk nday bokk baay ni tuur yi commencé ba léegi ñu nekk ci ay foire. wax dëgg yàlla dañuy sant yàlla bu ñu toogee bañ naan cercle des éleveurs de la banlieue ñu ngi foire di def cinquième édition wallahi sant yàlla la ndax ci ay tour la démarré woon sant yàlla la mu noonu waaye mambal bu ñu xoolee tey li nga xamante ne nii moom lañ fi fekk si tey tey euh, mën nañ nekkoon laadum nit ki bu ciy dugg mën na ko def liggéey am déet waaw léegi am na ñu koy def liggéey mais man xamul lu ma gëm àdduna nag

élevage nga def ko deuxième liggéey man deuxième liggéey la ko def mo sama deuxième liggéey su ma liggéey li may ba paré ñom damay ñëwaat li ci ñom ndax deuxième liggéey la ko man dal boobu la gën a soko soo ko defee deuxième liggéey nag dina baax ndax commencement bi investissement la tay nit mënul ñëw ubbi magasin bëgg def commerce tu yorul ñaar dërëm kon fan la jëlee marchandise bu mu ci def kon xale début bi investissement la kon faaw nga dem wut ay moyens nga ñëw investir ci xale après nak

man gëmuma loolu xam nga tax gëmuma élevage business xam la mooy business mooy dugal génn dugal génn boo sañoon daal du franc nga jaay ko suba gutiwaat kuy passionné mënoo loolu tey sujet yi fi nekk yëpp macha allah fii la ñuy juddu kon xam nga loolu passion la tey nga ñëw war a fi génne plus de vingt et quelques femelles ak ay mâles ñu juddoo fi kon loolu loolu passion la ak liggéey bu yàgg élevage bi man du business man passion la du tee nag maa ngi jaay li ma war a jaay ndax su ma fekkoon du ma woon jaay xëy duñ fi xaj wallahi azim duñ fi xaj maa ngi jaay hmm? di sant yàlla bu baax léegi nag jaay bi élevage bi da ngay passionné nga travailler ba am ay sujet yu baax do doomu aadama mënul commencé moom mën na toppandoo léegi su ñëwee gis sujet bu baax sànq maa lay dégg nga ne su ma ñëwee sax du ma bëgg a jóg ndax xëy dañoo rafet loolu moo lool moo lay poussé pour nga jënd loolu rek la liggéey boobu moo lay poussé léeg-léeg loolu liggéey la yaa koy travaillé ba am ciseaux yu baax nit moo ñëw gis bëgg ni la bëgg naa jaay ma wala laaj la ndax am nga looy jaay soo amee nga jaay ko. mu ngi noonu soo amee nga jaay ko waaye dañuy ay daal. ñun ñi nga xamante ne nii tey maanaam bokkuñu ci li nga xamante ne nii moom moo di système bi. ñun ñi nga xamante ne nii bokkuñu ci bokkuñu ci système bi. tey bu ñu bëggoon a ñëw. Euh, jël ñaari laadum yóbbu. tey ñun bu buñ ko bëggee jaay. te bokkuñ ci système bi. Mm-hmm. mais loolu loolu day day loolu naka lay demee day métti waaw xam nga lu tax muy metti njëkk ci yow mi ñëw dugal sa xaalis jënd di jaayaat <clears throat> xam nga boo ñëwee ci kër Balla Diagne mm-hmm. wala nga ñëw ci kër ay dara nga ñëw ci kër ay dara xam ne moom moo yoroon Ama Balde mm-hmm. Ama am fu mu jógee am feneen fu mu jógee mm-hmm. yor doomu B52 yor ay sëtu euh, alburax donc yow dinga nga xam jeune bi fan la xar mi jógee di xam ne kii ci par exemple Moussa Yade la jóge di nga xam ne kii ci tel la jóge kii ci Balla Diagne la jóge Balla Diagne moomu nga xamante ne xam nañ ko milieu élevage moom bu jëlee di jaay bokkul ak yow ibrahim mi nga xamante ne da jënd ci xaru keneen champion la ñëw teg ci marché bi di jaay ak xar bu jóge ci Balla Diagne di jaay benn mooy dañ ko xam ci élevage lu yàgg. ñaar dañ ko xam ci ne dafa jub ci élevage. yàlla nañu ko yàlla defal man nag jubaguma ba mel ne moom ah. waaw jubaguma bëgg naa jub nag ba mel ne moom. te li may wax naan yàlla bu yàlla changé ci samay waxi daaw ak daawaati jéeg dara ci saa bu ñu ma dëkkee micro wallahi ci milieu élevage yàlla suñu borom mu ngi ñuy suturaal ci loolu. di wax ne ki bees su jëlee ñu jaayee ko 1 million par exemple femelle bi gis nga bu demee diko jaay Ibrahima liñ lay moy ki kan la fan moy bergeram fan lay yare ban sang la yor ban jen mon mon nek ci xaram bi doomu kan la xaram bi war nañu xam mamam, bi jur yaayam wara xam mamam bi jur papam wara xam fan la jógee mhm. ñu ci doog def xaalis bi parce que nak xar mëna touti ta fekk ne dana jur lo xamantene mo gën fouf baayam te kooku mooy champion bi parce que gars yi ay vainqueur lañu. Mm-hmm. waaw xar yi nag ay vainqueur lañu mais champion yi mooy ñu mel ne ñoom Balla Diagne ak gars yi ñooñu ñooy champion yi. kon tey bergerie maam Balla Diagne bu ñu ko déggee rek loolu rek euh, maanaam marketing la. waaw xam nga léegi ah, gis nga lii xew nii tey yéen a ngi ñëw fii di def ak man émission bi ñuy doog a commencé élevage amul woon. waaw réseaux sociaux amul woon maa ngi rappelé photo. dama daan dem ci photographe bi ni ko ni photo mo léegi day jog ñew pour mom ah, man may photo ma ñew génne ben xal ni ko photo ma xar bi commencement bi waji pour mom man wéruma day xol xar bi xool ma. xol xal bi man photo ma xar bi mu xol xal bi xol ma après mu photo bi mu ko defee deux trois fois après commencé na comprendre mo ne ko photo ma mu photo kon tay léegi ñu dem ba affaire bi ex fi ba tay ay télévision du soxlo éleveur yi. di len di len jël. ñiy dugal seen sunu seen YouTube ñi di leen dawal ci seen seen national yi nit ñi apprécier ko di ko seetaan loolu mooy ndayu tey ñun ñuy créer ay foire di ko yaatal di ko ubbi di wane sénégalais yi ñun ay sénégalais lañ dëkk ci dëkk bi créer nañ fi ay produits yoo xam ne yu mucc ayib la lu nit mën a xool mën koo jariñoo mën ci jariñu muy élevage bi. Mm-hmm. voilà léegi seen foire boobu ngeen créé. Euh, bu ma juumul le 27 la ah. stade euh, Amadou Barry. léegi foire boobu yéen bu ngeen koy créé en tant que éleveur lan ngeen ci jublu en xam nga sànq yaa ngi wax ku bokkul ci millier bi su jëndee fan lay jaaye ok da gis koo xam ni day dem foofu la benn xaram sànq ba mu set ñëw boo ko dugal ci millier bi soo ñëwee doo ko dugal. parce que il ñu xam kii fan fan la jóge ak fan la bokk mais tey man su ma la jaayoon xaar tey nga amaat soxla soo ko jaay mun naa ko jëndaat man ndax sama produit la maa maa la ko jaay te maa ko travaillé te xam naa lan laa travaillé soo tey def naa ko ba taay jaay naa nit mu am soxla di ko jaay ma jëndaat ko kon loolu loolu ñun problème boobu amuñu ko ñi am problème mooy ñu bokkul ci millier bi dégg too laadum gis fu la benn xar bu mu rafet rek ñu jënd ko sang ko. jënd collier takkal ko ba ci léegi pël jaay sax da nga leen gis bu ñuy naan bii laadum la. xam nga la xam nga après ma damay reetaan rek léegi nag bu ko defee bëgg koo jaay prix laadum. xam nga tey soo xoolee télé yëpp ñu ngi publicité waaye gisagoo ci marché bi or gars yi di ko wanteer naan ñëw leen or baa ngi di ko wanteer gisagoo ko de ah même publicité or sax léegi sax nga kay xaw a gis léegi nii mais rarement la daan am ci télé yi.

250 millions, moo ko location 250 millions, ma de passion parce que bu je dama dans weddi mais parce que dans di ñu ma buy 3 millions 2 millions may leen pas mënul nekk léegi euh, au fil et à mesure dem da ngay ne lu la est-ce que nekkul yéen ñi ci système bi la vie koy sais, pour la est-ce que caméra est. yam

loolu warul indi ci xar da nga war a gis nga tey comme ni ngay nekk journaliste dafa nekk sa passion soo jógee dem di def émission di interroger nit mu nekk passion ci yow nga ni tey def naa émission bu nice mais bu fekkee yow toujours sa micro xam nga loo ci loo ciy xalaat yaa ngi ci lépp wala yaa ngi ciy noo ci noo ci waxee nit am ci dara noo ci yàqalee nit ndax da du am njariñ da ngay passionné nga xam ne yow li ngay def nii métier nga def di ci passionné léegi loolu gën a ci am loolu après moo lay fay. kon tam élevage bi fofu la toll léegi nak foire yi nga doon wax noonu ñu ngi koy commencer inshallah le 27 bi hein au 5 juin mais 27 mai au 5 juin au stade Amadou Baye fa lañ ko defee inshallah taala di ci wo éleveurs yëpp CB mo koy organiser mu nek foire bu mucc ayib man ak Alioune mi ñu ci jox rendez-vous éleveurs yëpp na éleveurs yëpp ñëw ay ciseaux yu doy waar ciseaux yi ngeen gis fi dinañ ñëw fofu yu ko gëna graw garaaw dina fa am kon donc na éleveurs yëpp ñëw.

dëgg la loolu nga wax loolooy dëgg parce que tey jii nii AS Pikine bii bu bëggoon jënd Sadio Mané dana metti de hmm. xam nga AS Pikine mënta jënd Sadio Mané ba ci ay marché sax mënuñoo jënd mënuñoo jënd Sadio Mané valeur ba mu am ak tolluwaay ba mu am hmm. ñooñu mën ñu koo jënd te commencement ba melu ko woon liggéey moo ko yóbbu foofu hmm. moo tax lépp looy dugg na la ci liggéey ak passion dugal passion am ak liggéeyam moo ko àggale foofu parce que bu ne woon cëpp rek daal di si seentu xaalis si saasi dana am gàllankoor ba du àgg foofu sujet yi nag foofu lañu ñu toll waaye ñun ñi nga xamante ne ñoo yor sujet yi tey jii nii su ma dee wax di ci séntu luñ may may du ma wax dëgg su ma dee wax di ci xool ñi may waxal borom daraja lañu. Mm-hmm. du ma wax dëkk te milieu élevage bi dafa nekk millier boo xamante ne yàlla suñu borom da ko naatal da ko neexal. Mm-hmm. ñun ñi ci nekk nag ñun ñoo ko war a sàmm téye ko sàmm ko téye ko nag boo ko déggee. Mm-hmm. de passage maa ngi félicité suñu groupe bi nga xamante ne ñoom la ñu mujjee nommé muy waa Adam teg ko ci loxo président bi mooy Fadilou Keita. di ñaan yàlla suñu borom du ma ne yan bi yàlla na woyof yàlla na diis parce que bu diisee moom mooy idée yi ñëw nañu xalaat yi ñëw nañu yokkute am na parce que bu yokkute amee rek yëfi diis donc di leen ñaanal yàlla nag suñu borom mu téyeel ko boppam bu diisee na diis waaye na ko yàlla suñu borom téyeel boppam nga xamante ne yàlla suñu borom lu muy joxe rek daf koy jox ña ko yellool ña war a am rek ay am te loolu mooy monde élevage parce que buñ dé wax tay suñu gisé man ak maam Balla dana garé otom jël ci mom samay temps mom ak kenen ak kenen parce que bo dé xol élevage bi sam ben xarit bi wax Modou Fall Fall maa koy nuyu de passage mom ci gëna encourager encouragé. Mm-hmm. waaye bi may ñëk dem foire mom mo ñëw daane ma am nga lo foire wax deug yalla mm-hmm. bi mu ne ma am nga lo foire duggu ci sama mbar daal di may duggal par foire par force. Mm-hmm. te bi sama xar duggee mu xool sama xar mu ne ma dugal ko concours rek comme dañ ciy foo pour la première fois ma bokk foire sama xar dugg concours bu ñuy wax doomu buur doomu B52 ndaysaan di gërëm aussi àll gay sama xarit bi ma ko jaayoon. dugg génn troisième. xam nga li ma gën a neex ci foire boobu dafa am suñu benn xarit ndaysaan doomu ndeyam bu ñuy wax Pape Gueye ci jury ba la bokkoon boobu maa ngi doog ko bees ci élevage yàggaguma ci mu ne ma sa xar maa ko yóbbu ma ne ko waaye déet waay champion bi mu ne ma parce que da nga koo sang te daggoo weey xam nga koo kooku xasuma daf ma dimbali wallahi daf maa dimbali mm-hmm. mu sedd sama xol lool ne ma gars yi mënuñu ko de mais manquant ñu yóbbu ko foofu xam nga loolu dama ciy gërëm paap dëgg la ndax dafa ma jàngal te nag doomu aadama waroo rëy mm-hmm. am na ci loo xamante ne ñi la ci jiitu mm-hmm. foog ngay fëgg seen bunt di leen laaj te loolu laa bëgg ñi bees ci élevage di ko def di laajte